gërëm sant ki nga xamante ni moom moo di invité bi docteur Ba. man maa leen di remercier. voilà très bien ñu dugg ci wàllum tàggat yaram léegi léegi ànd ceeg Soxna Fall. la Ligue Pro moom jël na devant nekk ci kanam. saison bu yees mooy ubbi. bu fii ci Sénégal football local la ñu daal di taab bi naka démb nag euh, janoon nañ ak taskat xibaar yi waxtaanee seenu ko ndoxteel yan disposition la ñu jël ak nan lañ ko daal di euh, bëggee lépp rek euh, ngir fexe wuti pexe ak i rek fu nu mën a jaar ngir développer le football local moo waral lu ni mel ñu def match boo xam ne match d'ouverture lay doon benn match naka suba samedi diggante AS Pikine ak GFC ñaari ñoo bokk fi ñu dëkk ñoom ñaar ñi banlieue la waaye laataa ñuy ñëw ci loolu dañuy dem Ligue Pro fekk mu dikk as lëf rek ci li nga xamante ni si waxtaane nañ ko fa naka démb bi ñu janoo ak taskatu xibaar yi Pama Morlo. niveau d'organisation bi il faut ñu améliorer loolu moo waral ligue bi saisir recommandation yooyu wax ni que démarrage saison deux mille vingt deux mille vingt bi am na aspect marketing comme ni ko euh, Souleymane waxee sànq mais aspect marketing bi li ko gën a waral mooy ñu fexe ba public sénégalais bi gën a euh, collé wu au championnat national. parce que loolu seetlu nañ ne concurrence bi ci football européen bëri na trop ci football sénégalais bi de sorte que public bi nu mu waroon ñëwee xëy na du ko ñëwee mais loolu xëy na aussi liggéey indi mooy communication bi parce que match bu toll nii ligue bi def ko en en en euh, match d'ouverture dafa am lu mu si jublu bu jëlee géej euh, Pikine boole ko Guédiawaye euh, c'est pas le hasard parce que Jaraaf Génération Foot aussi ay match match bu rëy la match Casa Sport bi match bu rëy la match yëpp mais bii comme ni ko ñëpp xamee dafa am particularité si ñaari mbir benn bi mooy ñaari équipe yoo xam ne sur le plan de l' organisation nañ fii à la ligue que depuis deux trois ans Guédiawaye boo xolee l'année dernière en terme d' organisation car bañ demee seeti leen wax nañ leen ko équipe bi mu ngi nekk si benn dimension très professionnelle loolu ñu on a pu constater te loolu naxul naxul kenn naxul sa naxul ñoom naxul leen ndax finalement fexe nañ ba dellu soit premier euh, Ligue 1 te lu indi nag modèle d' la mooy indi presque les performances mooy li muy Pikine depuis quelques années seetlu nañu en termes de mobilisation Pikine li muy li muy drainer ci championnat bi ci mobilisation de la première à la treizième journée en tout cas si ñoom bu ñuy recevoir c'est des stades toujours pleins te toujours boo xoolee depuis deux ans lañ daan wax ci Pikine que stade bu demee dafay am ay violence tout ça pratiquement amatu fa mais lu ñuy focusé si les les championnats étrangers dafa bari lool par rapport au championnat national loolu saa yu ibbee euh, déglu rajo bi wala nga déglu la euh, liir la presse écrite da ngay gis ni boo xoolee tey bi ñu ko doon bi ñu ko doon en terme de pourcentage mën naa ne c'est 50 pour cent football étranger européen euh, en particulier Liverpool Sadio Mané fi Sénégalais yi nekk ak 30 pour cent équipe nationale et xëy na 20 pour cent pour local. et loolu nag il faut tendance bi ñu inversé ko te pour ñu inversé ko justement il faut ñëpp jàpp ci ligue bi mu ngi commencé def ay efforts. Euh, que yéen journalistes aussi ngeen jàppale ñu pour ñu gën a valoriser non notre notre football notre football national. parce que boo seetloo tey jii critiques yi dafa ligue bi yëpp euh, dafa am aspect yoo xam ni yu positif yu gars yi di fàtte parce que boo xoolee football projet li muy génnee ci ay ressources ci ay joueurs dafa bari chaque année nga dégg ni ay départ joueurs à l'étranger kenn mënu ko xayma. Aïcha mi ngi noonu coach yi ñoom ils sont confiants il reste quand même. tout à fait comme ñoom dem nañu hivernal liggéey nañ def nañ ay recrutement da ci baax ku ci nekk xool ni ngay euh, doxandalee pour fexe dugg ak ndoxteel en succès ci li nga xam ne mooy ndox ndoxteelu saison bi Souleymane Diallo ak ma Massamba moo yore AS Pikine Souleymane euh, GFC ñoom itam àdduna ñu ñu teewlu leen ci xayma solo bi si ñaar euh, ñaar fànn fànn bu njëkk bi mooy euh, tàmbale compéti euh, compétition la te faral nañ di ko wax ni tàmbalee dafa am solo si lépp ni nit di di def d'accord beneen bi mooy tàmbale bi aussi bu weesoo tàmbale bi compétition bi bu weesoo tàmbalee compétition bi beneen particularité bi mooy ñin effectivement bëgg nañu am taxawaay bu am solo ren si euh, si champion championnat bi. match Guédiawaye ak ak Pikine tout le temps dafay nekk match yoo xamante ne après day am ay complication donc te warul warul def warul demee noonu parce que ñu ñëpp ay banlieue genre lañ euh, ñu ñoo bokk suñu suñu banlieue donc war nañu fexe ba nga xamante ne match bi daal ñu joué ko ci fair play et que le meilleur gagne ñu ñaan yàlla aussi mu may ñu ci ndam parce que tamit ñun ñooy recevoir. et que ñun suñu slogan mooy saa yi ñu recevoir suñu biir dëkk rek dañu bëgg di am trois points et buñ ko amul aussi ñu am la fa la ci des mais il faut des points donc parce que noonu la booy recevoir sa biir dëkk man li ma jàpp mooy tout le temps da ngay jéem a gagné xam nañ ne nag en face donc euh, euh, du nekk du nekk équipe bu ndaw la ñuy daj Aïcha ñu àddu ci programme mu Ligue ak Ligue 2 bi. voilà dañ ci tab bi kon euh, nii lay mën a tëddee bu dee Ligue 1 bu Sénégal ni ma ko waxee sànq samedi benn jongante diggante ay Pikine ak ñii di waa GFC loolu kon 16 h la ñu ko jàpp waaye euh, dinañu ko wéyal ci dimanche bi US Gorée mooy dalal CNEPS bu Thiès waxtu woowu ba tey 16h Génération Foot ak Jaraaf de Dakar Casa Sport moom Dakar Sacré-Cœur la ci war a laaleel AS Douane ak Teungueth FC jàmbaar ak Mbour de Louga Linguère bu Saint-Louis ak Mbour Petite Côte loolee programme Ligue en le bu dee Ligue bi ñoom dimanche la ñuy door Walidaan ak Demba Diop ñaari équipe yëpp Thiès la mu di ab derby euh, Amitié ak Port kon Oslo beneen équipe bu yéeg ak Kër Madior Duc ak Thiès FC jamono Fatick euh, ñaari tali. Stade de Mbour euh, ñaari tali bokk ci équipe wàcc ak Stade de ak Wakam Renaissance ak Sonacos kon ñoo ci euh, daje loolee mooy programme bi nga xam ne moom la ñu découvrir ensemble lu jëm ci wàllu Ligue ak Ligue 2 bu Sénégal ni ma ko waxee sànq saison bu yees lay doon ambition yi yees kon ku ci nekk defaru nga ngir mën a ñëw jëmmal sa bopp wa mhm. soxna Fall ñu àddu rek ci CNEPS qui CNEPS équipe Ligue 1 la ñoom dañ doon amal présentation seen effectif seeni mayo ak boutique bu yees bi ñu daal di ubbi ak seen i partenaire maître Pape Sidi Lo mooy seen président bu yembee ñu teewlu ko. ñu xam ne tamit ren CNEPS dafay changer doxalin ndaxte boo bëggee fekkee jouer Ligue 1. am projet boo xam ne dina la permettre tubaab bi nangu ñëw ak ñiy jënd ak ñi nga xam ne ñooy investir ci xale yi nangu ñëw di la seetaan doo jël ay jours yu am 30 ans 40 di leen dugg ci terrain bi mais da ngay jël ay gone yi nga xam ne ñay jënd aji jënd ji ak aji sija contrat yi ñi nga xam ne ñoom lañu bëgg ñoom la ñuy taamu ñoom la ñuy wut nga jël leen di leen football ndax ñooñu mën a dem ndax mën a fexe ba seen passion nekk seen métier ci lool la Senebs sa jublu moo tax ren boo xoolee fanweeri xale yi nga xam ne signal nañ leen contrat di leen fay chaque ñaar fukki ak ñeent yi amuñu ñaar fukki at ñaar ñi ñaar fukki kese la ñam juróom ñaari ñoo weesu ñaar fukki at te âgé wuñu lool ndax ki fi mag mi ngi judd 93 maanaam 28 ans la am ñaar fukki at ak juróom-ñett moo gën a mag ci équipe bi amul benn jour bi am 30 ans loolu nag néegu ñax dañuy dëkk ci hôtel yóbbu yóbbu waaw yóbbu jour yi fi tax ñuy wax parrainage bi nag daaw li mu fi dugal mi ngi tourné ci booru 8 millions ci 70 millions yoo war a dépensé bari na mais des na te nag vraiment collectif local joxewuñu dara te xam nga SNEIPS tey bu demee ba raw ñaari tali li ko mairie di jox su ma ko sama mairie joxoon kenn waxatu ko stade de Mbour maa raw li ko mairie di jox su ma ko sama mairie joxoon kenn rawatu waxatu ko US maa ko raw li ko mairie di jox su ma ko sama mairie doon jox kenn du ma séen nga raw ñeneen ay Dakar Sacré-Cœur ak keneen ak keneen ba raw AS Douane mi nga xam ne euh, œuvre sociale Douane moo yor équipe bi donc ñun on rase pas dañuy siggi dox nu mu ñu neexee biir Sénégal ndax daaw ñoo jël neuvième raw juróomi équipe te juróom yooyu yëpp ñoo ñu gën demin mais ren nag ñu songaat. xoolaat douzième place bi bu ñu jëlee fukk ñaar rek mooy bu su ñu limee Ligue 1 dañu limaale Thiès nañuy lim Thiès chaque année rek bu yàggee ñu ñëw Aïcha eh, Soxna de l'ambition c'est toujours bien. ouais c'est toujours bien CNEPS de Thiès ni ko maître Pape Sidi Lo dañoo dikkaat am gis-gis bu yees xëy na xool fu gën a sori ci seen bët en tout cas bonne chance à toutes les équipes qui participent au championnat local di fàttali rek ni AS Pikine ñoom wax nañu ne tey euh, dinañu amal lu jëm ci AG d'information kon tey bu 16h jotee ca salle euh, délibération bu hôtel de ville kon lañuy amale lu ni mel. mi nga ko ñu àddu rek ci AS Kolda moom am na euh, benn partenaire. voilà AS Kolda xam nga ni moom mooy euh, championne bu national de yéeg ci national 1 bi ñu euh, amoon ay coppite yu ñu indi sax Mamboy Diawo la ñu dénk léegi présidence bi ménageur général bi di yaayaabal Baldé Zeus ñoom nag ñu am partenaire ancien président Blanche bu ñëw ngir ñu bëgg taxawal académie boo xamante ni si day former xale yi lu am solo la football ba da ci daal di bokk kon loolee xam yi nekk dakaar yi nekk ci région yi ku ci nekk rek yaa ngi def ay jéego ngir fexe euh, sa club wala sa dëkk suqaliku ci wàll wi ngay yëngatu mi ngi ko Slimani moom mhm. il est le meilleur buteur des éliminatoires du second tour. voilà Slimani euh, moom doomu Algérie bi mooy euh, meilleur buteur du second tour bi comme ni nga ko waxee éliminatoire mondial Qatar deux mille vingt deux euh, gannaaw ba nga xamee ne am sept buts gannaaw ba nga xamee ne doxal nañu ba noppi xam nañu fukki yi war a dem xëccoo ngir barrage bi cinq war a génn waaye kii di Baumel di président wala di coach bu Côte d'Ivoire dañ leen éliminer. def na coup de cœur nee na li lu mel day tuer le continent africain ak talent bi ñu am joueur yi ñu am chaque fois ñu leen utiliser ci seen ay championnat mais di leen jox nombre bu limité bu toll cinq yu war a dem ci wàllu compétition bu ñu toll loole itam day daal di xañ yenn dëkk yi xëy na yu mag yi ñu am chance participer ci une compétition mondiale. Le règlement de la FIFA. Euh, moom la ñuy daal di euh, addu en cas d'égalité ci ñaari équipe durant barrage yi à l'issue euh, bu amee ñaari match moom la daal di wax mu ni règlement éliminatoire coupe du monde bi Qatar article vingt yom day daal di xamle ni rek prolongation de trente minutes day am quinze minutes bu ci nekk laata ñuy départager lu jëm ci wàllu équipe yi ci tiro bi ci jamono jooju FIFA wax nañu ne recevoir na plainte bu Afrique du Sud contre Ghana xam nga Ghana dafa éliminer Afrique du ñu tuumaal arbitre bi suñu compatriote sénégalais boobu Maguette Ndiaye ni xëy na pelanti bi mu tiré dafa léger waaye ci ay xibaar euh, ñu bari seen xam-xam màcc ci wàllu yi bu ñu gisee pelanti bi ñu bari approuvé nañu ni am na euh, penalty mhm. ndax ci surface de réparation bi daf ko daal di pousse moo indi mu def lu nu mel ñoom dañoo jàpp ni euh, mbirum neexal xëy na da ci daal di dugg kon FIFA dina leeral jëm ci wàllu woowu incha allah rabbi ñu waxtaanee basketball ak volleyball ngir ndar keppee ko foofu. xibaaru tàggat yaram yi voilà Asma Hadija ñu daal di addu ci lu jëm ci wàllu basketball ak tournoi monté bi nga xam ne ñu ngi koy euh, wéyal voilà mi ngi noonu kon euh, wàllu programme tey jilee poule A bi 10h45 euh, Ziguinchor basket club ak Diamaguène Fly Star Louga basket club GBA bu Pathé Keita ak US Rail 18h dinañu ci laale poule B bi 9h ak Sibaap ñu ngi laale Saale 16h15 eh, Kaolack basket club Pikine basket club USEPT ak Entente Kolda 19 h cinq kon lanu war a rek eh, daje. jëm ci wàllu euh, basket euh, bobe ñu waxtaanee wàllu volleyball play-off yi tamit ci la ñuy toll des na ko daal di euh, kon ci wàllu programme ñu mën a jàpp ñoom itam tey jii le 15h30 ak ASFA USUC ak DUC naka ëllëg ci samedi bi ñi di rek waa ASFA ak DUC kon tey waaw ñoo ci dajewaat ñi CNEPS ak DUC ASFA ak ASUC tamit noonu lay demee kon ñetti fan yëpp dañuy amal ay jongante ci wàllu rek volleyball boobu. boobee lu ko jiitu nag ISEG saltige Sococim ak police ñoom itam wax nañu ci daje loolee ci wàllu jigéen ñi lay daal di xewee ñii di saltige ak Fouta dinañ daje asug police euh, Sococim saltige euh, Fouta asug wa dajewaat ñu wéyal ñoom itam ba dimanche dina am ay euh, jongante loolee play off yi ci lañuy ñu toll ci wàllu volleyball jeexale rek ak wàllu làmb ak li nga xam ne. Euh, CNG xamle na ko mooy lutteurs yi engagé wu MMA MMA nag xam nga ni beneen xeet la boo xam ne suñu lutteurs yi ñu ngi ci doon dem xëy na di ci def ay jéego mu mel ay dogal juddu na ci am na ñoo xam ne nag rafetluñ ko parce que dañoo jàpp ni bu fekkee ne bokkuñu équipe nationale ay écurie la ñu daal di bokk bu ñu amee ay combat MMA wax nañ ci mën a daal di dem waaye dañoo teg ay charte yoo xam ne ci jamono ji da leen koy tere Asma Khadija ñuy ci rek sama rakk ji Bintu Ngom ma nga ca Touba sama rakk la sama doomu ndey la ak suñu grand Alassane Ka depuis Italie ak ñëpp ñu doon teewlu rek euh, di jaajëfal tam Kumba Dia borom Kumba Jewlis maam Sidi su mënee am rek bis yi ndax ñoom ñooy jàpp ci li nga xamante ne si moom la def saa su nekk ngir ñu gën a mën a yemb ci wàll wi dinañ ci ñëwaat xam naa. incha allah rabbi mais bu ñu descendee euh, ci wàllum làmb gi waaye ba tey mi ngi noonu accessoire yi moom xam naa danaa daw wuti ko waaye est-ce que ni mu la jàppee noonu la ma nar a jàppee. ku ko sol da lay jàpp. ah macha allah rafet allah. Ah, ma dinaa si utal femme ba Ah, ba pare ma teg ci toq couronne. ah eh, eh yow néew kii nu mu baaxee nii nag eh, lii ëpp na yow. dara dalu ko. ah dara ma de ah kii dara dalu ko. gëmëntuwul nelawul eh, macha allah de gëmëntuwul ma nelaw ma. dëgg la dégg na xam. waaw ah. macha allah. monsieur de. monsieur Touré nga ne. juumul de de juumul de. juumul de. donc moom dafa war a dolli sax. ah war a dolli a dolli mm-hmm. <laughs> li ma bëgg wax <laughs> xaw xaar leen ma noppee ko rek. lay doon daal dëgg yàlla sama xarit la nag macha allah waa Fama Ba. oui ba pour le jëri bu ñu descendee ci wàllum làmb ji ñu waxtaanee ko tuuti. MMA mm-hmm. dafa nekk euh, sport boo xam ne dafa wutee ak suñu làmb. Mm-hmm. loolu nag bu fekkee ni mbër ñi dañ fa gis koppar rek naan dañuy daw demi foofu il faut peut-être une formation adaptée. une mm -hmm. connaissance adéquate. Mm-hmm. pour mën a dem bokk foofu te bokk fii parce que très facilement nga mélanger les deux. te mën na la lor ci làmb gi fii te comme mën na la lor ci foofu Fama Ba. Mhm. loo may xool di retaan. en li ma bëgg a wax la dama bëggoon jël exemple ci Bombardier rek. doy na exemple non mais arrêtez c'est le tranquille. <laughs> doy na exemple xam nga fii mi ngi fiy terrasser ay nit. Bombardier gis ngeen ko donc mu dem ba foofu. Mhm. benn coup rek ci 19 secondes. Mhm. mu daal di dem jël kawo donc moo ne ne que nekk na beneen sport boo xamante ne dafa laaj. endurance laaj mhm. force bu bëree bëri. laaj technique laaj technique surtout. Mhm. donc tey làmb bi muy suñu làmb bi nga xam te ne moom la ñu am muy suñu lutte nationale. <laughs> Ah, euh, boobu neex na lool day àndaaleeg ay cumukaay waaye xam nga fële moom. amul euh, cumu tubaab amul ba pare ba tubaab ngay liggéey te du jàpp. <laughs> barki yàlla ñoom rek ay jinne la gis nga mi ngi noonu donc nag euh, lu mat a bàyyi xel la la nga wax rek asma <laughs> bu ñu dégg koppar bi rek ñëpp bëgg cee dem. ñoom maam si jeeg ñoom Bakary Banora yi <laughs> ay ay mbër lañ bu leen dem de hmm. dañ leen bëgg yéen <laughs> bu leen dem <laughs> lu raw kawoo lañ leen soxla dañ leen soxla daal li ci mën a am mooy euh, mbir boo daal xewee wax nañ ci am ak tàggatu am ci formation boo xamante ni si xëy na euh, au fur et à mesure que les années passent di nga am possibilité man a euh, rivaliser ak ñi nga xam ne ay grand lañ ci wàllu woowu te ñoom xëy na tàmbali nañ ko bu yàgg mais tamit ñun dara xew rek ñu de xam nga moo ñu indi parfois yenn jafe-jafe xëy na pour protéger leen peut-être xëy na CNG moo tax mu waxee noonu mais ñeneen ñi jàpp nañu tamit ne opportunité la pour nos lutteurs ñu mën a def leneen <laughs> loo xam ne dina am beneen rapport ci seenu carrière ca en tout cas euh, en parlant de leneen ci seen carrière euh, Tyson c'est un entrepreneur mm-hmm. Mohamed Ndao Tyson Mm-hmm. di inciter waxaat parcours am loolu moom xam naa kuy def profiler et carrière foog mu ñëwaat si donc tey baax na ñoom it ñu def investissement soxna làmb bi mën nañ ko def pour certes métier la pour ñoom mais ñoom tamit beneen source boo xamante ne euh, bu leen di apporter la